asalaamaaleykum mbokk internet mu média ginnaaw bu ñu leen nuyoo leen ñu leen di baalu àq di leen baalu àq ñu ngi fii ci lieu de vote Bara Gaye ak ki nga xamante ne nii moo di ministre Amadou Hott fii ci yëmbal diwaan bu yëmbal sud dañuy daal di ànd ak yéen si nga xamante ne nii ñoo di waa yëmbal ñu daal di xool ak ñun li nga xamante ne moo fi daal di xew ci élection locale yi dañuy daal di ànd ak quelques internautes mu mel ni Bara Gaye mi ngi ci biir ñëw na voté si Amadou Hott tamit ñëw na voté si pare dañuy daal di ànd yéen rek daal di xool lan moo fi jot daal di xew ndax jàmm am na fi. ah pour l'instant de jàmm am na ci moom waaw ndax élection yi moom instant yi moom macha allah mu ngi dox naajement dara xewul moom. nan nga gisee jeunesse bi tey encore bu ñu joxee résultat ku nekk bu nekk kii moo gañaa ñu bëgg fay nekk di xeex wala ñuy taal réew mi te yëmbal benn bopp la kenn mënu koo xañaar lan ngay conseil jeunesse yëmbal sud. ah su dee man moom ba élection yi xasee ba jàll bu ñu joxee résultat yi daal ku war a a nga bañ a ñoo xam ne ñoo war a jumelé ba xeexoo di am seen biir man naa dama leen di conseil conseil daal non violence ñu xam ne daal loo gis rek ndam ak defet ñoo ànd loolu la daal ku am defet nga xam ne loolu la yàlla dogal ko am ndam tamit ñu bàyyi la nga jumelé xeexoo bañ a am ndax lépp daal yëmbal la après mbokk bi daal lépp da ciy dox lépp daal na rafet daal. Mhm. muy kàddu yu am solo kon mu daal di jàll ci kanam. salaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la. pour bi. El Hadj Daouda mbay El Hadj Daouda mbay nan ka gisee tey élection locale yi fii ci école Mady Ndiaye ndax jàmm am na fi entre candidats yi. waaw macha allah li ma constaté mooy que ne pour l'instant les affaires se déroulent très bien. que ne franchement kontaan naa si waa Yeumbeul Sud yëpp parce que lii ma fi gis tey mosuma ko gis euh, si école Mady Ndiaye. parce que auparavant daan naa fi siégé mais le nombre de personnes yi fi daan gis da nga daan toog da nga naan mais nit ñi xanaa génn guñ mais boo ñëwee da ngay xam ne les gens sont sortis massivement. donc euh, damay ñaan jàmm ji ñu fi gis mu déroulé noonu jusqu'à la fin et jusqu'à la proclamation de résultat waaw. mais lan ngay conseil jeunesse bi yëmbal sud nga xamante ne entre élection bi day am ñu ne diw moo gagné ñu bëgg fi nekk di taar réew mi di yàq sunu alal lan ngay conseil jeunesse bi tey ci buñ joxe résultat yi ngoon. waaw loolu je voulais en venir euh, doon naa sax pour ñu am fu ma ko waxee mooy que ne violence ma gis man je le déplore te may wax jeune dëkk bi. ni leen gis ngeen ces politiciens là si on remonte dans les années passées yëmbal sud nii mu mel ren mosu ko mel te li ko waral mooy que ne nañu xalaat ñu ne par exemple élection yi fi mos a jaar yëpp y avait pas mal de candidats mais comment se fait-il que à un moment tey suñu commune mu mun a basculer carrément dans la violence donc nañu xoolaat bu baax euh, tànk yi nga xam ne moom lañu amoon ak yi ñuy teg léegi violence dara jaru ko parce que ñuy génn di ñu xeexloo du moom moo ñuy ñëw di fajal suñu soxla les plus brèves dans les moments les plus urgents politicien bi duñ ko gis ñun suñu biir la ñuy gisante ku si am dëj sa morom mooy njëkk ñëw taxaw ku ci am génte sa morom mooy njëkk ñëw taxaw donc arrêté de jaxase di jaxase dëkk bi nañ arrêté loolu parce que seen njaboot kenn gisu leen fi ñoom ñëpp ah j'interpelle tout le monde nañ arrêté li ñuy def di wóor nit ñi ci violence di leen joxe arm di leen financé ça ne sert à jërëjëf kon muy kàddu yu am solo yu. léegi lan ngay conseil jeunesse bi maanaam ka élection bu jeexee ñu nekk di xeex wala ñuy yàq suñu alal loolu loolu lan ngay conseil jeunesse bi tey. non man yaakaaruma ko ci yëmbal ndax ñun ñëpp xamante nañ te ay borom yi jom lañ borom yi ngor lañ te borom yi xalaat lañ du ñuy du ñuy dof waaw jàmm daal laa fi gën a séntu. jërëjëf kon kàddu yi rafet na ñu jaari jàll ci kanam. salaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la. maa ngi lay ziar de. tur bi. Euh, Mamadou Mbaw. Mamadou Mbaw. waaw Mamadou Mbaw nan nga gisee tey élection locale yi entre école Mady Ndiaye candidat yi ndax jàmm am na fi. ah élection yi ni ma ko gisee nii moom lépp jàmm quoi lépp dal na instant yi nit ñi génn nañ nit ñi kii mais instant yi moom lépp jàmm moom yàlla na continuer nii kay. am na yaay Mamadou Mbaw nan nga gisee élection locale yi nga xamante nii élection bu jeexee dañ fiy nekk di xeexoo ak xiiroo ak ŋaayoo xar ñaar lan ngay conseillé jeunesse ah ma leen wax comme nii rek ku voté ba pare rek pour ku voté ba pare boo génnee ñibbi coow du am loolu daal la loolu daal naka ñëpp def. lan nga leen lan nga leen di ñaax ci bu kenn gañee ñoom ñëpp am grandeur maanaam xam nga félicité ko def jàmm. waaw ah, mooy bu mooy booy déglu élection yi na la fekk sa biir kër ngay déglu foofu boo fa dégloo foofu boo déggee résultat yi bu la neexee nga zibilé foofu wala nga boo génnee di bu buñ la gañee buñ nit di génnee zibilé nga bàyyi ko mu dem. nga xam ne kooku day peete yow nga xam ne yow da nga am defet dëgg jërëjëf waay ba léegi moo ki internet sunu média ñi ngi fii ci école Madi Ndiaye mu mel ni sous préfet bi dafi daal di ñëw moom tamit fas yéene xool si élection yi ba xam mbaa jàmm moo fi am ba léegi mi ngi dugg ci classe yi benn par benn di laajte ndax amuñu benn jafe-jafe ci élection yi moom préfet de Yeumbeul Sud moo nekk noonu ci école bi ñu ngi fii ci école Madi Ndiaye yéen a ngi sunu média bo léegi ñu fii ci école Madi Ndiaye yéen a ngi ànd ak bi noonu préfet bu yëmbal mooy xool école Mari Ndiaye ba xam jàmm ba léegi moo fi daal di am moom ne man na moom lañ fi nemmeeku moom préfet baa ngi noonu di xool classe yi benn par benn moom préfet bu yëmbal mi ngi noonu. mbokk internet sunu média ba léegi mu mel ni ñu ngi fii ci diwaanu école Mari Ndiaye ki nga xamante ne nii moo di Moussa le maire Bara Gaye mu mel ni ginnaaw bi ñëwee. def yëfi patriotisme ñëw ñu ne ko kaay voté mu daal ne damay daal di ran ba nga xamante ne nii kon ko man maa mujj man maay soog a mën a voté boobu léegi mu mel ni moo daal di ñëw def li nga xamante ne moo daal di doon participation ci li nga ne moo di élection locale yi monsieur le maire Bara Gaye mi di jël xob yi nga xamante ne nii moo daal di doon candidat yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci euh, élection yi mu mel ni li leen fàttali ni moo di bàbbal na li nga xamante ne nii moo daal di doon enveloppe am bi mu jëlee xob yi mu mel ni dafay daal di jëlaat ndax vote bi ñaari yoon lay daal di doon mu ngi noonu di jëlaat moom monsieur le maire Bara Gaye mi ngi naa bi mu jëlee koo tabalaat foofee ca mbañ ba mu nekk deuxième votam monsieur le maire de Yeumbeul Sud Bara Gaye ngi noonu tabalaat na xamante ne moo daal doon ca mbañ gàcce ba monsieur le maire nga xamante ne moo daal doon enveloppe am mu fas dem daal di signé signé ji daal di pour ñu xam ne monsieur le maire voté na. naa bi monsieur le maire pare mu mel ne dafay daal di génn monsieur le maire Bara Gaye ngi noonu mbokk internet yi tabal na loxoom ca encre ba.

ñu ngi am jiixi jaaxa ba ba léegi ñu toog seen kër ma leen di ñaan nañu génn dem ci centre de vote te bu ñu voté nañu taxaw ci centre de vote parce que sàcc moo leen des pour ñu mën a gagné mais du ñu permettre personne ñu sàcc suñu élection li nga xamante ni moom moo fi xew aussi depuis ñetti mu ngi ciy alerte am na ay nit ñu dëkk jidda caare ko am ñaari pièce d'identité am nit ñu dëgg wàq naan limsaan am ñaari pièce d'identité am ñu dëgg de nutrasi jàmm gën si kàmbaaw am ñaari pièces d'identité loolu preuve à danañ ko mettre à la disposition de la presse parce que démb on les à la disposition de la police am na ñoo xamante ni aussi ay milliers de personnes yoo xam ni importé nañu leen ñu jóge ci région yi ñëw fanaan si Dakar uniquement ngir voté fii nga xamante ni mooy yëmbal parce que ki fi nekk tekkiwul dara amul dara kenn àndul ak moom li mu yaakaar mooy foog ñu jëlee ay nit ci pour jéem a gañ loolu bu ñu ko accepté benn yoon ñi nga xamante ni ñoo fanaan Zac Mbao xam nañu leen ci ay auberge ñi fanaan Petit Mbao xam nañu leen ci ay auberge 300 personnes yi fanaan ci këram xam na leen et ñooñu on va prendre toutes les dispositions qu'il faut ba ñooñu gën ñu voté parce que yëmbal doit revenir au yëmbal waay ñàkk ñu fayda te kenn du sàcc suñuy mais ku gis li nga xamante ni mooy engouement bi am depuis ce matin ñoom war nañoo tudd war na je demande à tous les jeunes ku ci voté na nga taxaw ci centre de vote dañuy sécuriser suñu vote mbokk internet yi yéen a ngi mu mel gis ngeen discours bu am solo bi nga xamante moo di monsieur maire Bara moom la daal di def ba léegi yéen a ngi suñu média léegi xam naa dañuy fii ci bi nga ki moo di doon di nekk maire de Yeumbeul Sud moom tamit ñoo na daal def votam def petit discours bi ngeen daal di dégg noonu yéen mbokk internet yi bu ko defee dañuy daal di demaat lekk foofee ca nga xamante moo di école 25 tasaaraan na leen xibaar yu leer te wér te wóor bu defee rek ngeen daal di ànd ñun ba léegi ñu ngi fii ci école Madi Ndiaye mais daal di jógee dem fee fooy nga xam moo di école 25 ma jaxate kala xoolaat la fa xew ci ay xibaar moom tamit asalaamaaleykum mbokk internet sunu média yi ginnaaw bañ leen nuyoo ziar leen ginnaaw bi ñu jógee foofee ca euh, école Madi Ndiaye yëmbal sud ba fekk fa ñoom Baara Gaye ba pare ñu ngi fii ci Géejawaay wàq na Nimzaat école Xaalima Jaxate Kale école 25 dañuy daal di dugg rek xool nombre de nekk ñu ñu lan lañ gisee tey local école élection locale tey tey ci Géejawaay fi ngi fii ci diwaan bu école wàq na Nimzaat école Xaalima Jaxate Kale ginnaaw bi ñu jógee foofee ca école Madi Ndiaye bu yëmbal sud ñu ngi fii ci Géejawaay ñu gis fi suñu benn moment moom tamit lim ci lim ñu jot a taatanal ci xibaar yi bokk na ci daal nee na ginnaaw bi mu ñëwee vote si moom gis na si li nga xamante ne moo di élection vote yi ak salaam fii fii ci école Xaalima Jaxate Kale bi moom sunu maman bi natu sunu média gannaaw moo di nuyu naa la. maa ngi lay fay euh, maa ngi tudd Mody Gadiaga candidat wu coalition Jàmmi Gox yi ànd ak Pastef Wakhinane Nimzatt fii ci Wakhinane Nimzatt euh, di leen jaajëfal. ginaaw bu ñuy jógee école Malick Ndiaye ñi ñëw fii nii ci école 25 ci xibaar yi ngeen tatakaloon tey ci nga xamante ne mooy élection bii nii ñëw nañ fii nii ci école 25 di ànd ak seen site Média TV dig daje ba beneen noonu incha allah.